Zala euh, Serigne Babacar Seck euh, doyen tey ñëpp xam sa taxawaay ci Thiès mhm. ci développement mhm. ñu gis ni ci wàllu aada mais également ci wàllu cosaan mais mhm. ci wàllu protocole ñu yàgg gis ñi nga xamante ne mooy aboutissement beaucoup de personnalité yoo xam ne Babacar Seck yàgg da leen côtoyé tey ñu ngi ci euh, gàmmu Kër Thione Sarr mu boo xamante ne tey am na une tournure internationale parce que ñu ngi fekk kilifa ñu ngi

fii ci kër Thione Sarr bu nekkee kër Thione Sarr ñoo ngi nii ci kër Modou Khoule c'est une question boo xam ne nag question boobu neex a tontu la ba ñuy ñëw en cours de route li ñuy jëw Modou Khoule ak Ousmane Sarr parce que développement d'un pays un village comme Thione nga def ko nii xam nga ni kookoo xam luy développement d'un pays te c'est des promoteurs yoo xam ne dañoo yàgg liggéey ci réew mi boole ko Omar lu ñuy wax toujours que ni baax rekk a sakkan parce que baax dina toll foo xam ni dinañu ko wax foo fekkewul jëw la boo xam ni suñu la koy jëw jëw bu neex lay doon Modou nag c'est un homme pur et entier simple boole koog wax naa ko wax naa ko benn kilifa nee naa leen ko Modou Khoule bu muy un franc ak milliard moom la yemale def lu baax rek la jëflante lu rafet la xam te dinaa la nettali benn mbir moo xam ni Modou moo ma ko nettali te loolu wax la woon rek te dama woon ni bëgg ko bëgg ko woon a wax sax bu ngeen nit rek nit arrêté ko mu koy mu koy yóbbaalee bu mu koy yóbbaalee en cours de route doomam téléphoné ko ni ko papa ba fàtte woon tey jii la ñuy tiire tey jii demu màkka yi noonu ko ah doom bul ci sonn yàlla dafay def loo xam ni saa bu nu tiiree man de yaakaaruma dem duma ko gañe mu coupeeg doom ji yàlla def moom ci wàllu boppam ñu woo Modou Khoule ni ko Modou foo nekk ñu ne maa ngi nii je suis sur la route ñu ne ko am na fi benn billet màkk mi ne ah benn billet màkk mais ah, kooka ci wàll boppam xaw ma ko da ko doon yóbbaale.

dañu convenir ñëw xam ne ñu euh, sa loxo ak sa alal ak aussi say collaborateur tey lan ngay addu ginnaaw kàddu waaye suñu doyen Babacar waaw Babacar li mu wax moom ñu ngi koy sant ginnaaw bu nu bu nu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi rafetlu kàddu yi mu wax yooyu waaye dafa fekk yàlla dafa wàcc alxuraan am saar wu mu ca wax ci sabbi sun rabbika laxlaa boo jàngee ba ci biir mun ne innahu ya'lamul jahra wa ma yaxfa kon ndeke yàlla xam na lépp jëf yu nit def yu nëbb mbaa yu feeñ te moo ngi koy gis te doo ko yëg ndegem nit a mën a jël léegi hmm. lii may wax def ko ci caméra yi mu tas àddina bi léegi léegi léegi sunu borom passé na foofu ak suñu ko sax ci wax kon nit lu mu mën a def mooy jéem a jàng te bañ koy geestu mooy baax man daal li ñu xam mooy jéem a jàng baax te bañ koy gis te bañ koy gestu te bañ ci gis sa bop te jim nango liggey te nango wax deug te nango jàppale doom adama yi parce que lepp lo am ñi la ci jàppale du ngeen bokk ndey du ngeen bokk bay kon doom adama la yalla jox cër kon cëralal ko gis so jugge fi lo jënd jënd auto wala lo am terrain di nga romb lo momul legi bo génnee fi gis lo momul kon dañu wara sante yalla biñu yalla defé ñu nek <coughs> nitu lislaam nitu diiné nit ñoo xam ne dañoo war a nekk xeet boo xam ne dañoo war a jàppalante parce que Sénégal dafa am lislaam boo xam dafa nekk léegi l'islam dafa mujj ñëw Sénégal Mauritanie ñi la jaare wàcc Sénégal ñu mujj ci jot lool waaye liggéey nañ ci jéego yoo xam ni Sénégal ak am jomam ak ak bëgg-bëgg lu baax ak bëgg-bëgg l'islam liggéey nañ loo xam bu dee ciy jàkk bu dee ci juma bu dee ciy daayira yàlla xam na ne salaatu faatiha Seex Ahmed Tidiane mi nga xam ne ci moom lañ ko jëlee muy sëtu yonent sallallahu alayhi wa Algérie la juddoo ñëw Maroc moom itam maamam mu ngi juddoo Makkatal Mukarrama daal di wëlbati ko dem Medina jël fa yëfam Cheikh Ahmed Tidiane Algérie la juddoo ñëw Maroc jël fa affaire am mais adduna bépp di fekk Maroc di jël salaat faate ci moom mais am na benn waay bu ñuy wax Cheikh na Ahmed Tidiane da ko jël ci ay ay ay sëriñam salaatu faate mu jugo fii day seeti euh, Cheikh na Ahmed mu dem gisee see waxam moom mun ko lu bari jox naa la ko ak ñu la indi woon jox naa la ko am na benn dank bu ma jël jox la yow Cheikh Seydi Hadji Malick mu liggéey ci loo xam moo tax mu ñëw mun ne gars yi bu doon waaye seeti kuy laaj ne bi kaay ma la ñu ne ko ak lan mu ne ku bëgg a xam seex kaay ma la ñu ko ak lan mu ne maam xam naa na ak nañu toppante ak ku nekk la leen ak fa leen suul man Maodo xam naa ko kon moom dafa jël ci euh, euh, ci ci Fass sol ko loo xamante ni mu ñëw Sénégal tasaate ko ci réew mi booba jàkkee da ngay jullee làqatu baax dangay ngay julli di làqatu tubaab bi sonal waa diine yi lool sonal nit ñëpp Maodo daal di ñëw ni man de du ma xeex mais a def a allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima axlu wal xaatimi lima sabax nasiraqa bil haq wal haadi ila siratika mustaqim wa ala ali haqa xadri wa miqdari hasim ñaan naa li yàlla salaatu fatih bii li ma ko jëkko mooy sukuraat yu métti yi Sénégal yi jàng ko teel la fi jóge sukuraat dem mu jumaa yi na bari jàkka yi ne bari mu dóor li muy dóor kere bi muy dem gars yi di ko yo jooyoo ca Tiwaan biñ bi mu feebaree ñu am na ko ma bàyyi sama ginnaaw mooy xalifa Ababacar Si du ma ko sax ci wax lu ngeen réerul ci man jël leen ko ci Babacar Si te man seex naa météo jox na ma jëleen naa lépp jox Babacar Si moo tax Babacar ne man bu dul ma dul woon sax taw nekk xalifa seex su loo xamante nii koy def fii tey dëgg dëgg dëgg dëgg képp ku ñëw fi tey dañuy wax ne yàlla na yàlla fa see aju bii ngeen yore yàlla mi nga xam ne mën na tas ni mu def rek salaatu te ba mu def ci réew ba wàllu woo gis mu ubbi ci yonent sallallahu alayhi day dar door salaatu fatiha salaatu yi door a mën a ubbi ci buntu ba jàll wàllu yëpp d' nañ ci fi wàllu yi d' accord nañ ci salaatu fatee mooy buntu rasulullahi sallallahu waaye yal na yàlla ubbi leen ngeen jëm ci ba ngeen seen leen yal na ngeen jafe yal na ngeen bari commande yu dul jeex yal na liggéey barkeel ba ngeen bu ngeen jógee lu ngeen séentu woon ci liggéey bu déwénee yàlla na ko yàlla yow maa ngi gërëm jigéen ñi yëpp ñi fi nekk di gërëm ñi fi nekk ak ñëw ñëpp ak sama chef di village bu déen géej ni dama fa am kër parce que sama chef de village la ak Mama Sow déen géej sud ak ñoom Moulay ak Ndiak Mansour mi ak Babacar Seck ak ñoom Galum ñëpp gërëm naa leen dafa am loo xam su ma ko limee dama leen di yàggal waaye sama xol dafa sedd ba nga xamante nii li nga bëgg a wax lépp lé duuf ci nag bi mënoo su ko togg ci cin li waaye sed naa ko ci yàlla ne bu ñu paree fii léegi léegi léegi bu ñëwee dina tëj benn ñaan boo xam ni Seydou Mouhamadou suur moo ma ko jàngal ni ma ñoo bëgg seen aajo faj jàng ko ñu dégg ko tey mu ni boo ko déggee mbooloo moo dem am ngay dox wane ginnaaw ñu ne hey nga geesu ñu ne ku bëgg a gudd fan ku bëgg gudd fan nga gert sa ginnaaw wallaahi neel wala kuy gudd fan taala sa rono ca nga bokk xam nga lan la dinaa jàngal léegi baat yi léegi ngeen dégg ko seen aajo faju seen di wala seen la koro bismillah ausbillahi shaytan rajim eh, man maa ngi tudd Amadou Mbengue maa ngi dëkk Lagros Kër Mayram Mbengue

dalay da jox te bu moytu sax noonam bi lay gën a jox kon kii mooy xulle dund naa juróom benn fukki at ak ñaar mais mosuma gis ku mel na xulle te gëm naa ne danaa dee duutuma gis ku mel na moom ndax yombut alalam du ko boole kenn ñëpp la bëgg bañul kenn kii benn melokaan la boo xam ne boo ko doon jeex ci région Sénégal doo ko gis ku mel na moom loolu man lu ma leer la. ah ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant nag alaaji bi nag moom kenn mënu koo sant ndax moom ni ko nit ñi gërëmee noonu la mel. ñun ñi di ay soxlaam ñoo ko njëkk gërëm ndax noonu la mel dafa sincère baaxam gi du tricher te lii ñuy def ñun du tey rek lañ koy def tàmm nañ ko ci moom ndax boo ñëwee sunu kër yi toujours nii la ñuy def moo bu ñu ñëwee ci gàmm yi du ñu jaaxal ndax gàmmu Tiwaawan toujours nii la ñuy def kon nag fii kër Thione it ñi la ñuy def toujours moo tax lii du ñu jaaxal di wax nag guddi yonent bi rek la kër la ñuy def nii bañ na ko këram gi nekk Tiwaawan kër yonent bi la ko tuddee kon ñun lii jaax lañu ñu ngi ñaan gan ñu fi ñew yalla nga fi jëlee barke yàlla ci nu alaaji bi la ñukay ñaanal guddu fan ak wër ndax baax bi mom ci ñun la ko ñëkke sax bala mo dem fenen ni la mel ñu ngi ñaan fekk lepp fekk ñu xalé yépp lañ koy ñaan merci beaucoup ginaaw bu ma santé yalla di jullu ci muhammad sallallahu alayhi Wasallam ma ngi sant sama ñaari wajur di sant yaayu modou di sant papay modou di ñaan yalla nak modou lii mu nga xamante ni da koy def yàlla na sax yàlla na fi yàgg di am mbégte pour encadrer ko mu ñëw ci lu mel nii ndax moom lu mel nii rek ci lay dox ci gudd Mouhamed ci lay dox gis ngeen Tiwaawoon bu ñëwee noonu lay doxale bu ñëwee fii it noonu lay doxale te ba noppi Modou gërëm gi ñu koy gërëm nii ci ñun la jëkkee ndax Modou bu fekkente ni maye na xar ci àll bi booba wàcc na nag këram ndax bu fekkonte ni dafay def bu demee def fële ca àll ba bu ñëwé ci suñu kër duñu may jamm duñu may salam duñu défal defal bon tay du démé ni waye ku fi ñëw xam nga ni rek Modou yor ay jabaram yorna ay doomam banéxi doomam rek moko taxa tax ak banéxi adama yi ban légui ñong koy ñaanal mu wër gudd fan mu dund nak ba njabotam gi diko awu ci lu melni ba njabotam gi li muy liggéey mu diko def waaw yal na fekk ndariñ njabotam yépp loolu la ñu ñaan ñi fa top kenn ku ne na astaghfirullah yoon na mus lu seytaane ñetti yoon kenn ko ne neex wallaahi man ku ma tooñ baal naa la yàlla na ma ñëpp baal ndax yàlla du la accordé nga amee kenn dara kon baal leen ñëpp tey jéggalante tey jëllale kon ñu jàng ñaan bi lii nag dama amoon benn oto di ñëw Tiwaawan ci Seydi Mouhamadou Mansour ñëw ci moom di ko ñaanloo ci oto bi mu jël oto bi ne may ma ko ma jox ko oto ba mu ko dama am kàttan ñaanal mu ne may ko ma jox ko oto ba mu ne kaay ma jàngal la loo xam tey koo bëgg ci mbiram baax fanam gudd suba ak ëllëg bu ko déggee rek affaire yëpp baax man suura maa garanti lool te du waxantu ndax baaba kër Si la te Alaaji Maalik jur Babacar Si te ñoom juruñu ko lu wàllu yi mm-hmm. auzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu teelu ko بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بنورك وجلالك وبحق هذا الاسم الاسمي نعم. وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اسالك ان تقضي حاجتي وتبارك لساني واملي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله لا اله الا الله لا حول الصمد الله الله الله لا اله الا الله بدو السماوات ولا الارض جل والكرم نعم. اللهم اني اسالك بحق اسمائك المطهرات معروفات مكرمات ميمونات مقدسات التي هي نور هلا نور ونور فوق نور ونور في السماوات والارض واسالك بنورك الحسيس الحسيم وبنور وجهك الكريم وبقوت سلطانك المبين وجبرتك المتين الحمد لله الذي لا اله الا الله بديع السماوات والارض ذو جلاله والاكرام يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا رباه يا رباه يا رباه اغفر لي ذنوبي وانصرني على الاعداء واهدي حوائجي في الدنيا واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيجي ngi def benn waxuñu li ñuy ñaan mais sëriñ bi nee na day faj soxla ni ordre sewel dindee gàgg-gàgg téere waaye faa boo koy tar da ngay concentré ba ci ami ba nga nooy waare ko alhamdulilah rabbil alamin soxla boo amoon yitte boo amoon dana ko saafara ci kàttanu yàlla ñu def faatee door noy ba ci amin ba nga nooy waare ko ëpp sa dënn boo paree koo dendal nga jox ko sa loxo ñu ko bànnaa la yàlla boruñu jógal faatee kilifa yi nga xam ne ñoom laa andal muy ah, collectif de chef de village de la commune de Cherif Lo nekk juróom fukki dëkk ak ñett di 53 villages yi nga xam ne yàlla mi nga xam ne mooy dogal mooy nattub jaamam mu nattamam ma ne ci seen jëwriñ ne ci seen kanam kon ñu ngi leen di nuyu ci turu kilifa yooyu chef de village yëpp tey ñu ànd itam délégation bu riis nag bu bari boo xam te ne si tey ñu ngi teew fii tey ah ki nga xam ne moo ci ci kanam di alaaji Serigne loo mi nga xam te ne mooy euh, chef de village bu Serif Lo. Euh, monsieur le maire de la commune de Thiénaba bien vrai wax na dëgg euh, toogaayam laa fi tooge ndax lépp lu ko yitteel noo koy ànd dem ca mbaa mu yebal ma ca waaye nag tey dama fee tooge ñaari tànk ndax à l'époque yàgg na lépp loo xam ni lu aju ci alaaji Ousmane mii fu ñu daje comme nii la koy defee jox ma kàddu gi ngir yàlla akum mbokk ak deret ndax am na ñu xamul waaye nit ak kër ndijaayam fa tabaarakallaahu bu fa demee daraja bu mu am daf koy summi nekk jaam rek kon foofu laay waxee d'abord ndax fii mooy sama kër nijaay mooy sama cosaan fi sal sama yaay jóge jaayaanay sama kër pàppa waaye bu ma xasee ba ñëw nag ba ci janasa yi fa laay summi mbugum sëriñ jaayaan ma ñëw nag nekk fii jaam ku tabax jàkk saa borom tabaxal la kër ci àjjana waaye ku liggéeyal ku baax sa borom tabaxal la ay kër ci àjjana sëñ Tuubaa na waq di xawaaij allazina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu waaye daal nag inda li xidmati fa lahumu diyaara wastal jannati ñu njëkkante di ma am nañu ay kër ca digg aljana yal boole kon yow boo jëlee kër maam maharam tey teg ko fii ci sa kër ndax man kër maam laa fi gis tey kër maam maharam laa fi gis ndax lu tax maam maharam moo jur maam Balla Issa mu jur maam Mor Anta Sali mu jur sëñ Tuubaa maami kii ci sewet ndi maam maharam moo jur Saydu Mbàkke mu jur maam Ousmane mu jur maam Farimata mu jur maam Alaaji Malik mu jur maam muy maam mi kon dajale nga kër maharam kër maharam mooy lan mooy lislaam kër maharam mooy diine ci der bu ñuul ci mujjé ñëw di xaadimu rasul bi mu dikkee dafa ne yàlla man ma bëgg nek ki li kar rasulillahi ndax amna naa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif amaa ngërëmul Cheikh Abdou Khader jilani ndax né na raddi anni sibtuhu Tidiani delu ne raddi anni sibtuhu Jilani ñoo ñëpp gëreum nan ma kon yàlla lu may doon légui may seen représentant ñom ñëpp amul Tidiane amul Khadir amul Layen légui xam nga lu ñuy tudd al muridu allah ñi bëgg dem ci yàlla noonee la ñuy def léegi amatuñu tur al muridu ila allahi ñi jëm ca yàlla la tudd léegi nañ leen tudd ñi jëm ca yàlla waay ñi jëm ca yàlla mooy lan wax naa leen ko fi keroog mag ñi leen fi def buñ ko yàq maam El Hadj Malick sa maam dafa bëggoon li la xam ne sa ponkal la xam nga sëñ bi dégg nga nurun min al asli xayrallahi lam yadumi leer gu amut fenn yàlla do ko fa bàyyi ñaari fan samaam ngand la ndax Seyxul Xadim fa bëggoon téere bu ñuy wax Taa'ibu Suluk ak Rawdul Aqfan te booba jàpp na nit ku weex rek kay fi am xam-xam mu yebal ku ñuy wax sëriñ Omar Gueye ne ko demal utali ma Taa'ibu Suluk ak raw Rawdul Aqfan ca Mauritanie Cheikh Mamadou Moukhtar Kountiou ba mu dikkee ba gaaya romb fa samaam mu toog mbooloo mi bari ci buntu kër gi mu ne ah maam El Hadj ngi fi de naa fi jàddu nuyu ko ndax ñoom loolu la leen yee sëñ Tuubaa woon. mu jàdd nuy ma alaaj Malik mu ne ko foo jóge mu ne ko ca Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mu ne ko foo jëm mu ne ko daf maa yónni Cheikh Modou Mokhtar Kuntiyu muy téere bu ñuy wax Taïbu Suluk ak Rawdul Aqfan ma alaaj Malik ne ko dalal leen ko ma ñëw daan dugg ci biir néeg bi ubbi waxandeem di wër téere di xam nga ne téere ba muy wër yàggoon naag moom muy wër téere di wër téere ba Alaaji Malik ba rocci téere yooyu di tay ba surug ak rawdul aqfan daal di fekk Cheikh Omar Gueye fi mu toog ñu bégal ko ba pare maam Alaaji Malik jël téere ya jël génn xasida génn këyit bind ca sëñ Tuba ne ko hadiyatun muwajibul istilaab ayuhal hubaab adama rabbuna ala al abdil wisaal mais monsieur le maire li nga def xamoo ko sax wa baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam gannaaw ba ñu santatee yàlla. moom buur bi nga xam ne moom rek moo yeyoo kañ. moom buur bi nga xam ne moom rek moo yeyoo bàkk. na mu ko soobe ak na mu ko bëgg rek. na muy waxe boppam wa tilkal aayaamu nudaawiluha bayna naas buur boobu tey ci mbaaxam ak kàttam ñu dékkoon loxo yi ñaanoon ko te yàlla lu mu wax dana ko def ndax moo wax ne ud'uuni astajib lakum wa ida sa'alaka ibaadi man yàlla maa ngi nii yéen jaam yi li ngeen bëgg laaj leen ma ko man maa ko yor keneen ku ne yaa ko yor yoroo ko ne keneen ku ne yaa ko yor di nga daje ko ko yor ëllëg te xaw ma loo koy lay ko ko yor kenn rek ko ko yor te mooy yàlla kon du ñu jóg di ko sant ci mbaaxam ci kattanam waaye ñu tamit ci suñu masadi waaye moom ci matam mu melal ni ñu ñu mel tey kon jar na kañ jar na bàkk waaye damay wax ne sant yàlla nag bokk na monsieur le du lekk ba suur wala naan ba màndi yàlla nee na cant gi tax may wax mooy ifal la tafal xam ngeen constitution bu senegaal boo demee dañ lay liiral ay page yu dul jeex yàlla nag constitution ñaari wax la lii lu baax la ifal lii lu bon la bàyyi ko ka nekk ca lu baax nag mucc nga ku ca nekkul nag yal na yàlla delloo si nga nekk ci lu baax fa tabarakallahu di ziyaara ñëpp ci ngoon gii tey nga xam ne yàlla ñu ko baaxe mu yiw ñu tàntal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te alquran boo xoolee yàlla kenn la ko teg ci loxoom mooy borom tànt bi yaa ayyuha rusul balligh ma unzila ilayk waaye wa in lam tafxal wa in lam tafxal jëf xam nga sallallahu alayhi wa sallam bi ñu tegee alquran ci loxoom. yemul ci rek jotal ko. wax comme ni may def nii toog fii su ma génnee kii toj fii kii toj fële keneen toj fële kañ la réew mi jox bañ tajee toj ba léegi ci la réew mi màbb dara baaxatu fi. te mag ñi daawuñu toj dañ daan tabax. xol nag la wax. kon mu mel na yonent bi sallallahu alayhi wa li ko yàlla jox alquran yemul ci wax rek dafa jëf ñu ne nag. ñun kat sopp nañ yonent bi wa sopp yonent bi mooy lan xanaa du waykat yi way ñu joxe xaalis fetter su dem déedéet inna matxa nabiyi xayru xilaajin xaali juuni bihi fa fihi shifa bu leen way ndax xadara lee mu jot te day guddi mu mel sallallahu alayhi wa mooy li yàlla teg ci loxoom ñun ñu ne sopp nañ ko te yàlla li mu teg ci alxuraan li mu teg ci yonent bi salaay salaam mooy mu orienté ñu lan la ñu war a orienté orientation yonent bi xam nga lan la. ndax yàlla ba mu ñu bindee xalaxal mawta wal xayaata te yàlla li mu bindee doomu aadama ko gënal mu ne ko kat dee naa jëkk bind ci yow. xam nga dee bi mu paree nag si isa jaa ajaluha la yastaxiruuna saa wala yastaqdimuun kañ la fan la naka la ak nu muy ñëwee ngal la lamtooro waajalal sa bopp ma ne ko yàlla naka laay waajal sama bopp mooy ci sama santaane sax ca li ma tere nga bàyyi ko ndax dee kat day bette te xamoo kañ la moo tax bi waxtu yu jotee rek nañ bàyyi xel mu mel ni bi waxtu yu jotee léegi léeg-léeg ñu naan nañ continuer waxtaan bi erreur weesuwul loolu de dee day bette te dee yóbbaale benn waxtu julli ku la koy layal moo tax fu waxtu jotatee rek lépp luñ ko jàpp nañ ko bàyyi joxal waxtu wi ndax farata la te yàlla li tax mu indi ñu kaw suuf ngir ñu jaamu ko jaamu ga nag jaamu yàlla buñ koy wax jullee tax wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al yaqin ponk lislaam ñëpp xam nañ ko aj màkk azaka weeru koor wi waaye yooyu yëpp boo ko mënul wàcc na la waaye julli nag moom du la wàcc mukk dara ba hattaa ya'tiyakal yaqiin kon julli nag mi ngi mel ni jëmm ci nit léeg-léeg ku ñu dog cëram du ko tere mu doxi soxlaam waaye ba ba dagg suuli rek kon mooy julli kon mbokk yi lu ñu mën a jàpp lu ñu mën jotaay bu ñu mën a ne sëriñ ab li may wax nii sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla yokk leeram sa sëriñ amiin bés daf ma yebal ma dem bay génn mu ne ma si ban ban ban thème nga war a waxtaanee daaw jéeg la. Hmm. fekk may dem njaafat suba la seen gàmmu sax bu ñoom Ibou Diop sa xarit ma dem bay dem mu ne ma. Oh. lan nga war a waxtaane ah, man na quoi man day joxuñ ma thème mu ne ma soo demee waxtaanal julli ak laab. li may wax yow xam na ci dara. Hmm. ndax téeréem bi mu bind li mu ci wax yëpp keroog la ma ko yëkkati jox ma ko. ne ma dee ko waxtaanee si foo dem xam nga ñun jullit li ñuy jëriñ. xam nga lan la. Mm-hmm. mooy julli. Mm-hmm. li ñuy jëriñ mooy lan laat mm-hmm. moo tax sa maam Cheikh Al Hadj maa ne al madrasa xabla al masajid. donc jàkk yi ne nañ Maodo ci biir waykat yi dañ koy woy waaye Maodo laata muy sos jàkk am na lu mu njëkk a sos ñu ne ko lan la mun a jàngale. ba xam say far. xam farata xam nooy dugg ci jàkka ja naka la loolu la Maodo indi moo tax mu ne al madrasa xablal masajid léeg-léeg woykat yi naan jàkka yi Maodo nangam nag déedéet Maodo laata jàkka yi dafa jàngale dugg ci xol yi defar ko ba mu waaw damay wax ne jóge ca làmba ja ñëw ci jàkka ji ñu defar la ba nga set waaye tilime ci jàkka ja fan lañ lay defare te bari nañu ñu tilime ci jàkka ji fi nekk nii te li ko waral bakken ak gis sa bopp te yàlla ne na kuy gis sa bopp rek bokkoo ci man kon nañ delloo si waat man bëgguma guddal ndax sëriñ bi li mu fi waxtaan léegi doy na sëkk te xam naa ne ñu ngi aj ngoonu ajjuma la dafa fekk rek teggi tuuma xam nga teggi tuuma mooy lan ñëw ba fii waxuma dinañ teg tuuma len na ci nit ma bëgg leen teggil tuuma bu moo tax ma yëkkati kaddu waaye damay wax toujours ne Cheikh El Hadj Abbas la mu waxoon ne kii wax naan Touba Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul yéen ñi xam na ngeen leen wax nañu noppi mooy la gën seen dawlu jiitu na tey loo bañ bañ du fi jug waxal boqatiku yaa malxuunu yaa qatti xol aw tuuba wax ni tuubaak ti waawan ñaari dawle lanu في دورة تور والله كوك خمل سبع شرحة جبعي سبار ديلا كي وغني توبات وانياري دولة لنو في دورة تور والله كوك وخمول سبعين أنا يبقى وحيد يخب منبي مود لكم مخمني فضل العليم كرهم للنول شير حاجة بلايس مالك نينا نوخ بدي لولو مهم nag yàlla def na ko jekk ndax yàlla def na la muy def xabla za cha azal seen daw ñu ngi leen di dégg bu baax a baax waaw ñu ngi leen mi Mbacke Serigne Guédé Serigne Guédé mii dara Serigne Xaabaan Mbacke ànd ak doomu Serigne Xaabaan Mbacke te léegi la fi Serigne Xaadim Mbacke jóge bu Serigne Mourtada Mbacke dara Serigne Mamour Mbacke léegi la fi jógee ah suñu sànni bii loo ñëw di kilifa bu mag fekk fa ay taal yu bëree bëri. jógee ca Ngaabu jógee ca Ngaabu tey di ñëw kenn desul. Serigne Cheikh kenn desul. Cheikh Ndoye Ndiaye kenn desul. ah bi ñu def kii suñu imaam li borom xam boo xam borom xam boo ma ne imaam yi nit dund yëpp mooy seen imaam. di sëriñ Cheikh Ndoye. macha allah. waa Jalle na sàpp ko fi. bële gi dem la dem fii ci kër Gare Sarr. waaye man dama ko ni sëriñ bi bis dugg moo dem ci kulo. ndax day jàngale rek. ak daara moom la xam. nekk imaam rajo bu El Hadj Gora Diop bii fi jógee ku baax nga xam ne xamuñu foo gën. yàlla ko Cheikh Ahmed Tidiane teeru. Rasulullah teeru ko. Cheikh Seydou Mouhamadou Makhtar xaaritam ba mu doon mu doon jiital tool teeru ko. ci barke Seydina moo ko tabaxal jumaa jula jooju yéen nga yaay imaam bi ci tund yi yëpp mosu ko mu di toog di sama xarit. mu ngi toog sëriñ bi. baal la rek mel noonu. imaam yëpp ñëw nañu. naay bi yëpp ñëw nañu. di gërëm président délégué quartier yi ku baax la mbir bi ba nga jàppee ba léegi noppaluwul toogul noppaluwul di gërëm sama xarit président élevé léegi léegi léegi léegi la fi jógee te ñu délégation bi ñu andi fukki oto ak benn andi na ko kaay na ko woon dugal ko ci dëkk bi. di gërëm nag beneen ak sama xarit nag sama xarit sama soppe sama mag sama lépp. man daal sax sama sëriñ parce que sëriñ Ba la gën a aada bi boole ñu xam mooy sëriñ kon ma koy beral sëriñ Diop si ñu gën koo xam Diop si. sëriñ Mansour si borom daara yi. waaw bu ma la waxee xam nga waaw waaw sëriñ bi. yow si dama demul kenn demul. dàqu demul kenn demul ñu wax la ne waxul kenn. seex baax na. yow si dama demul kenn demul. dafa daan foofu sax Dakar. sant ci benn musiba. boole naa ñoom martoor yu baax nii. ñëw ba lan la gaar bu porte sax bi. mun ma tànk lu ñuy liggéey ci kër Thion fële wu ma fi bëgg ñu ma la benn dërëm. ñu ubbi yoon bii départ kër Thion Sarr. ba Serigne de ba a mètres mu def fi ñaar fukki fan ba ñoom dañ ciy ko wax xamante ne Diop si def loolu. loolu doyul mu ma dëkk bi mbedd bu fi ne toj nañ ko sëriñ bu fi ne toj nañ ko yoonu Lalla ñu toj ko yoonu Kër Masar ñu toj ko yoonu Kër Ngor yoonu Kër Masar lépp jëm si ko rek dama man ku ma defal lu baax ma wax ko maa jëm si ba géej gi fer moo ko dem ma wax ko. waaw. loolu buur bi santaane ak loo soxla mooy waay. na am solo jarul jarul. pour ñaar tamit waay. waaye wala lu mu doon waay. pour sa bopp mooy waay. ak ak Cheikh Tidiane yi. dégg nga ni ma maa ngi xumbul moom. Cheikh Tidiane. waaye suñu jëfee ci moom tànn Cheikh Tidiane ñëw ci moom dimbalu ma ndax Cheikh moo la bëri Thank you. للعارفين تهلك لأبي الرحمن أبي العباس أحمد أنا تعلم الشيخ الكيلاني وفي تعلم الشيخ يا تجم ما نقدر نقدر نخبر شيخ شيخ سيما Cheikh Babou Niang garaayeeku daal yaay yaay ma wax la jël Fuuta ko yaay may sa taal ma mujj tey ma xam jiital ci nuyoo bi suñu waajur wi dem ñun di sëriñ Mame Bara di ko wàcce wàccuwaayam di ci teg ki ci topp di El Hadji Modou Khoule yal na yàlla bàyyi ko ci suñu kanam wax dëgg yàlla yal na ko yàlla bàyyi suñu kanam nuyu rakkam monsieur le maire yal na yàlla mottali yéeneem moo xam li mu yéene yal na ko yàlla defal nuyu kilifa yi fi teew yépp bu ñu tuddee ñooñu rek ñuy yóbbaale seeni gan waxkat ba nag dafay wax ni ku won mburu rek tudd dëkk waaye dëkk bu ñuy tuddit ay nit a tax wa ma sawada al aqtaaru illa rijaluha wa illa fala fadala li turbin ala turbin bu dul nit rek dëkk du am solo kon nit la yàlla fonk ba tax fu mu nekk rek foofa am solo waaye ndax nit xam na loolu boroom xam-xam yépp dañu d'accord ci ni bi ñu seetee organisation yépp bis bu ne ñuy organiser te ñiy organiser ñëpp ay nit lañu wante nit ña am na ñoo xam ni fanu leen di teg ndax yàlla teg na leen fa muy jàngat boo xam ni dañuy ñaan rekk ñu jéem koo jàngate xel bañ koo jàngate xol ndax boo xoolee baas bii li mu toll nit a ko defar te nit kooku yàllaa ko bind yàlla moomu ba mu koy bindit fo taxul waaye dafa am lu mu namm ci moom pour mu taxawe ko ci kaw suuf jox ko xereñu baas bi avant démb boo fi ñëwoon dara nekku fi waaye nit ci xelam ak ci mën-mënam bu ko yàlla may donte lu néew la moo fexe ba taaral ko nii dajale fi ay nit nit ñi nag façon bu ne nekk fi bu dee ci wàllu góor bu dee ci wàllu jigéen bu dee ci wàllu mag bu dee ci wàllu ndaw façon nit bu ne mi ngi fi ñii bokkuñu seen morom lu ñu sol ni nu wuutee ni la nu wuutee ca sunu borom waaye ñu tànn ci ay nit nattu leen tabaxal leen lu nuy tudde pajom yéegal leen ca kaw waaye nit ñooñu bu ñu bàyyiwul xel ci ni yàlla leen nattoo ñu yéegal leen ca kaw ndax yéeg ca kaw ndax yàlla ànd na ca yàlla mën na ci bañ a ànd donte borom dëkk la donte monsieur le la donte boroom réew la donte imam la donte sëriñ la bu ay nja ay ay topp ci moom loolu buñ ko jàngatee rek war a delloo yàlla njukkal ndax ñi toog ci sees yi gënuñu ñi nekk ci gannaaw bâche bi taxaw amuñu fu nu toog ñi toog ci sees yi ñi yéeg ci kaw pajom bi tim leen gënuñu leen gënuñu leen sedde sedde nit la rek waaye yàlla na fekk mu da mu dajeeg lu yàlla d'accord ñu war ci bàyyi xel xatta boroom kër bi nekk ci këram ni man maa moom sama kër lu ma neex laa fi def ku àndul ak man rekk may ma sama kër doom wax nga ni ku ca biti ndax samay promotion d'accord ceeg man doo ko ni mukk li yàlla li yàlla li yàlla dogal nanguwoo ko li yàlla farataal defoo ca dara danga ko naa juboo sama awo wala juboo sama ñaareel wala jubóo ak sama chauffeur wala fu ma denc xaalis yaa ko xam moo dem ca ba ki ñu tànn ni ko yaa jiite dëkk bi yaa jiite dëkk bi ñu xam ni képp ku mu doon ci ñooñu dinga taxawaat ci sunu kanamu boroom leeral ko loo jiite woon dëkk ba budé imam ba la même chose. gina bu sante yalla yàlla julli sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu mboolem ñu bokk ci li di ko doxal di nuyu dëkk yi ñi kër goor góor la do ñet ñett fan kenn pour ñëpp ak dëkk yi war di gërëm di gërëm di gërëm nitam monsieur le maire Ousmane Sarr ki mom lay mujjé sax waye di daral suñu gan ñi fi tok kii ma toog sama loxo càmmi mooy maam Baara Fall xalifa taw mi ngi di toog te ngoon gu mel ni yombutaam su ma jógee jëm sama ndeyjoor damay xool sëti yoon sallallahu alayhi yi toog nii te daara la ñëw xam nga gars yi dañuy woote présidence Ahmed Kounta mi toog. biñ ko joxee par dana gars yi kenn ku ne jox sa morom loxo ci keroog bay dina xam nga ñoom ay daara lañu te daara boo ci nekkee mënu cee xam dara nga jël ñuy baat moo gën ñun bu ñu xool ak ñoom dañuy jàng rek daara euh, kii di Ahmed Basiir Kounta bi ñu nekkee tout tànk dañ ko daan diglu jàngal na ma yonent yi bëri bëri lu ma ci mën a wax ci moom yi laa ko jàngal lu bëri ba Ahmed Basiir Kounta mi toog ñu bëri war nañ ko yóbbu ci RTS kon ñu ngi leen di fàttali di ko fàttali suñu bopp ñuy jéggalante tey baalante ak te ku mën a jàppale sa morom nga jàppale ko te gis ngeen julli am na solo mais munta fari munta dindi bàkkaar ci nit déedéet woor du dindi bàkkaar ci nit déedéet xam nga luy dindi bàkkaar ci nit di looy mën a def lu nekk da ngay daan sa doole nanguwul liggéey te jubal di wax dëgg tey jàppale ko mën a jàppale loolu mooy dindi bàkkaar référence benn danañ ci jox tuuti kii ma toog di sëriñ Baara mii fonctionnaire la su weer dee dee ko dama ko ne su ma santoon damay damay téye sama bi rek dina laaj ñu dox mais day liggéey gàmm moom defe naa matagul semaine wala ci la yem daf leen ni Baye Fall day niir Baye Fall am fulaak fayda nangoo liggéeyi te jaamu yàlla tey wax dëgg tey xay tey set loolu di Baye waaye soo di di yalwaan taxut nekk Baay Faal moom mi moo ko wax bëkk dem mu dugg semaine ma moom mii day fay ko bu weer dee kii di amet kurta mën a xam ngeen ko mais bu ma santoon kurta man dama naan sëtu yoon sala damay toog dajal samay taalibe mais day liggéeyi du ñu am bàkkaar mënut a nekk mënut tey jii de sa boo génnee ci tànt bi ku fi nekk fii jàkkaarloo ñu teel ñu toog sama gauche ak sama droite ak li imam wax ak ñi toog fii ak alaaji Dawar Sarr mii toog fii ak salaat li ñu fi jàng tey ci dëkk bii julli jumaa muy le onze lam si wax li wax léegi léegi léegi nee na maa bindal sëriñ Abdou ci onze onze mois ci weer bi ñu nekk mu tombé tey sunu anniversaire mu di ko wax naa ko bindal ma daan ko wax naan bindal ma yàlla defal ma jàmm ak fan wu gudd waaye bi yoon da ko ni ñaanal ma yàlla ndax ma dem ca moom ca yàlla laa jëm te duma boo bëgguma boole naa kenn lam tooran koy nett léegi ca la ko wooyee eh, ko man de xam naa ne am naa sëriñ sëriñ ab sëriñ Babacar si mooy sëriñ alamin ab dabaax dabaax dabaax dabaax sëriñ Babacar tey sëriñam te ñu bokk benn baay moom mu ne ko nañ ma woon sëriñ Mansour mu fekk si ma Dakar Dakar ca la waaye Maxtaar Kebe lam doora si toog mu naa ko busuraku moo Mansuuru xat wu liitu moo ni ko man sa bàyyi damay jël si yor bu wet te moo ko tardel ndax mooy sama sëriñ xam kooku moo len Sëriñ Abdou Assis moo ne Sëriñ Babacar Sëriñ koo jël te leen day lay jël passation de service bii mu jël dana ko wut Sëriñ Mouhamadou Mansour kay ca ko naan Mansour ku bëgg laa ku la fonk laa dippi lu ginnaaw ñaar fukki at ak juróom su may naan kees ci yow kaasu euh, ndox ndox su ma ci defee ndox di ko xool yow laay seen ci biir ngay jeenee sëriñ bi sëriñ bi mag ñi jox la cër bi tey yaa ko yore sëriñ bi teel bu dëgër te bu ragal te bu tiit yàllaa nga jox lii mun a jox te kenn du ci man dara moo tax sëriñ Mouhamadou Mansour yal na yàlla yokk leeram dama naan xalifa bu yàgg xalifa bu tey xalifa boo xamante ni boroomi dërëm boroomi dara boroomi daraja borom dane saa maam nee na ma ne kooku mooy Seydou Seydou Mouhamadou Mansour fu mu jëm nga ree ku ko seen ree ku mu jur defar la mbaa mu defar la mooy sëriñ boo xam ni daa jël nit jël leen ko amee aajo nga ñaaroon moom mu defar sa affaire soo génnee nga defar affaire koo bëgg a defar affaire kooku Seydou Mouhamadou Mansour Seydou Mouhamadou Mansour dajee muy ajjuma ñu dajee fii maa ngi wax léegi ci Serigne Bara mii ma doon wax léegi léegi léegi ni maam Cheikh Ibra Fall dafa nekk maam ci ñun man ku ne xam ne ne Coro Fall moo jur Talla Khoule ku ne xam ne ne Talla Khoule may sa biige moo ko jur may sa xulee ko jur ñu tudd ko may sa biige Fall ñi baax ñëpp ñoo bokk ñi baax ñëpp ñoo bokk muy maam Bara waaye maam Cheikh Ibra Fall bi mu ñëwee Sénégal dafa ñëw rek nekk fi di liggéey Serigne Touba buñ ci jariñoo lu bari bari bari Cheikh Ibra Fall te yàggul moom moo ko taxaw ko ci dooleem taxaw ko ci saarit ba Serigne Touba xool ko ne ko hee yow de xool naa la tey sol naa la battin foo jublooti yiw yàlla rek nga jublu moo taxoon mu tax gars yi am lu ñuy jaaral leen ni dana yàlla déer dama ne tànku yàlla bu mu doon séen jikko ci yow dina ci yow laay jaar ndax te xam naa ne fa yant bi teg nga taat te yant bi yàlla lay diir kon yoon bu ñu jógee boobu monsieur baax baax baax Euh, ana basir konte ñi de setu yonte sallallahu alayhi wasallam ana ñi nga leen di nuyu baax baax di nuyu sunu serigne xalifa général de khadira yalla ko fi yalla yagal baax baax di xam ne kontaan nañ ci yeen bu baax baax ñi ngi nuyu ñi fi nekk ci kaw siri jaxati ñi nga leen di gërëm yépp di wax waa ubuta président dama bëgg nga ñëw fi euh, euh, bawta ñi waye daayé pour ñëpp dañuy ñëw def délégation dañuy ñëw ci organisation lu ngeen bëgg ngeen def ñu ngi ni tok di waxaat rek ni dafa am ñoo xamante ne yàlla dafa bind te yemaloo leen de yàlla day bind te yemaloo leen xam nga jàngi suuf la mais du leen yamale nañu nangu yàlla di bind te yamale gis nga Seydou Mouhamadou Mansour Serigne Abdou Ciss dafa ñëw sës ci moom te mosu ko rëkk benn nekk sarawi tam sorofot ci sowu penku siin benn sorofot mooy Serigne Abdou Ciss kooku tam mu ñëw nekk wàllu baabu kersa wax naa sànq nee leen ci ngoon ci lantoor bi nag seet Seydi Hadji Malick kere ba mu demee Fass gisee Cheikh na Ahmed Tidiane da ni mbir maa ngi noonu salaatu faatiha am na benn dànk bu mën na nga ko jël yor ko yóbbu ko Sénégal téye ko ci xam nga moom ñëwee lu wax hey ku doon seet yonent bi kaay ñëwal xanaa nga dem siyaare yonent nga ñor waaye wallahi ku bëgg a xam ci Cheikh Ahmed Tidiane Algérie la juddoo mission bi Maroc la ñëwee ñëwal waaye yonent bi Makka la juddoo mission bi Médine la pare ñëwal kaay ma wax la fii ci taan ma wax la lépp man Cheikh Seydi Hadji mu jël lépp def ko ci ñoom di jël ci moom jàpp yonent bi ko bàyyiwu ko juddu ba tukki ba gàddaay ba bañ ko robee ñu ko jullee ñu mucc ca bàmmeel ba ñu doon roy bàmmeel ba lépp Seex Seydi Haaji Maalik wax nañ ko wax karaw yu génn ca nopp yonent bi ak bakkan yi doon génn wax nañu ko Seex Seydi Haaji Maalik Alaaji Mourou li ma bëgg a wax li duur ci nag bi nag gars yi du ñu li duur ci bi demul ci kinne waaye nag dañ ñoo jox ay cër ñuy wax Seydou Mouhamadou Mansour ma jëkk a jox cër siyaar fédération euh, daayira Kër Massar yëpp toog ci weeru mu jox ma parole ma yox ba gàmm gii passé Pikine dama ci waxtaan ba ñu ni ma yow mii day war ngay ñëw ci mbooloo yi di waxtaan di ci wax ci gàmmu sëñ Mansour bii passé matugul fukki fan ci Pikine ci kanam Cheikh Ahmed Tidiane xam nga seex yi mënul yenn yi seex ku yaru la seex ku tey la da seex ku yiw la seex ku baax la mënta waaye wax naa fa loo xam ne nee naa Seydi Mouhamadou Mansour mooy borom affaire ya xam nga lu mu daan wax gars yi kaay xamoo dara ma defal la nga xam dara kaay ma defal la dara boo bëggee loo bëgg nga dem ca kaay maa ay ci chef de service sa aji ko jàng wala ko jàngoo dara xam nga moom dafa Ousmane Sarr

billahi wallahi ban ko defee lam-lam la toog ñu daal di woo Ousmane Sarr ne ko duwaañi yor na cent millions seet nga bëgg mbaa espèce nga bëgg Ousmane gi nii taxaw nii mu jóge ko yóbbu sëñ Mansour dafa ko affaire am waaye nag mënul ñàkk ci loolu Ousmane ko nangoo toppe la Ousmane Koum nangoo kilifteef la daal di dem ma jox ko Serigne Abdou Aziz Al Amin yóbbu ko ca moom ne Serigne Abdou dénk naa Ousmane Sarr daw alay daw Sarr nii moo njëkkee ko Serigne Abdou Aziz ñu am ci ndigalu Seydi Mouhamadou Mansour ma tàggu Serigne alay daw na ko damaa bëgg saalu Serigne Babacar bii ma defal ko Serigne Abdou mu ne bi ko lay door waxee mun ko saal boobu de ko ko defar defaru tey ak suba waxuma la tey mais tey suba nga defaru saal bi nag am na borom ba ñun moomuñu ko baba garse ko moom maa sonko saal ba sans sal Ousmane Sarr ma ñuy jënd bu jëndee bii ma jënd bi ñu di ko dóor sëñ Abdou si woo ma ne ko kaay Ousmane dégg naa jàng bu ñu mu tëddee nga làmba sa poos waaye billahi wallahi jeex dara Ousmane Ousmane loo bëgg a dégg ko def xam ne nit ñi bokkuñu yam nit yàlla yàlla ci biir nit ñi doonoon xàmmee kenn du bind dara waaye nit yàlla dina xàmmee moroomu nit yàlla gis nga am na ñoo xam ne boo jegee defar ba faaw boo doon boo doon bëggee defar ba faaw gis nga Ousmane nii dafa jëlu maire jox ko maire nga xam ne am kilifa wóor koomul kilifa billaay wallaay bu la ngelaw ngelaw njeexaan jiyee sa nga daan Ousmane mii dafa ñëw ama maire yor un an mu ñam maire bi musal maire mu neex lool nga ay tas mu dem sëriñ Abdou Sy ne passé dama bëgg sëriñ bi mun ko déedéet sëriñ bi Ousmane alal dal mun ko dama mënuma gis sëriñ bi sëriñ bi ne ko demal nga watee bu carte yi jeexee sax man ma jox leen carte ñu gañal la nah, barke Serigne kër Sy am kilifa wóor Ousmane dem génn premier tour ñëw ci escalier ma ne bande bi sax Ousmane daajo waaye dafa waroon a jël benn firme boo xam dama ko jël ko ñu ko Serigne Abdou wàcc escalier mooy maire bu am loo xam kenn ma ko ni ko maay sa premier conseil li may wax waxuma politique moo defal ko moo tax Ousmane mii ku ko jàpp incha allah yàlla na ko jàpp ndax am na ndigalu sëriñam am na ndigalu waajuram ñaanal nañ ko moo tax gis nga que yi bëri da koy jaar waaye gis nga am na eh, benn rab jësig boo ko dàqee ba mu dugg ci ndox bàyyi ko boo ko toppee mën na laa gaañ ci mbaa nga lab sonn wàcc ko fa mooy Ousmane Ousmane bu ragal dara waaye nit la yàlla yëla yàlla boolu ak kilifa yi nekk ci wax bi yëpp nag nañu leen jàpp ko wax ak ko ndax yéen ay sëti yonent bi yéen a rax sët bi ci kaw bi tey kon kontaan waaye damay bëgg a wax kenn ku ñëwul fii yàlla yàlla fas sa gis ngeen yàlla mën na ko ngoon gii ngeen xool xoolal ñu tedd ñii toog ci kaw bu ngeen leen xoolee waaye nit day jël xolam mu set wicc nga yéene sa morom jàmm mu dem mu dem yoonam waaye boo xeebee Ousmane Sarr mbaa nga xeeb Ousmane la ko yàlla bindal Ousmane jàngul année bee mais am nay kilifa moo tax mu nekk autorité nekk maire de première maire de la communauté mu suuf dugg ci école nag jàngul dara te alxuraan na mukk lool yenn yi maa ko doon jàngal waaye gis nga nangoo ak dëggoom ak nangoo liggéeyam ak nangoo jaamu yàlla nangoo dimbali mbokkam moo ko may li mu am nii kenn mënu ci ñaari def Ousmane di ko taxaw waaye di ko di ko dugal nga taxaw fii dugal nga taxaw fii fii li ko may lii dina leen jëkk fàttali daal mooy weer koor dégg na si mm-hmm. ñi amee woon boru weeru koor daaw na seen xel nekk ci fay weer wi nanu ko waajal ci ruux waajal ko ci xol waajal ko ci xol waajal ko ci yéene ak ci cër yi man mooy weer wi nga xam ne yàlla nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas ci la yàlla wàccee alquran alquran mi jële nit ak jinne ci lëndëm yóbbu leen ci leer moo di weer wi ngeen xam ne itam lu bari xew na ci di islaam ndax ci atu ñaareel ba ca gàddaay altine fukki fan ak juróom ñaar ci ya, la dëgg ren lay caaxaan te mooy xaribaat est-ce que yàlla tudd ko ci alquran laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla mhm. jullit ñi dàq nañ leen màkka nangu seen alal nangu seen dër nangu seen jur ak kër ya ñu daw làqu ji ci madina al munawwara taxul Quraysh bàyyi leen ànd ak yahud yi di fexe rek jëmale ci yenante bi ba ñu toogee gànnaay jox ko saay-saay bu nuy wax dox zuur ngir mu boom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi dégg ni màkka yónni na njëgg ca Shaam ku nuy wax Abu Sufyaan moo doon naayibu Abu Jahlin moo ko jiite jullit ñi ne ànd ak yenent bi ne na lu génn njëgg ma buñ ko tegee loxo du mat sax asaka alal ji nu nangu ci ñun waaye ñu teg ko loxo rek waaju ñu xeex waajaanu mu xeex amuñu gànnaay itam ñu génn yàlla ne ah comme moo leen tax a jóg du ngeen dellu Madina dem la ngeen xeex ak ñoom ñetti téeméeri julli ak fukk ak ñett ñee di junne ak seen gànnaay ak seen jumtuwaay yàlla ni xeex leen man koom taxul ma wax koom kooma tax ngeen jóg di ngeen xeex tey ñu xeex jullit ñi am ndam keroog la yonent bi di ñaan ba naan yàlla lim bu néew bii boo leen seetaanee ba nu dàq leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf yàlla jox ndam njëliñ mu di weer woo xam ne itam ci la yàlla joxe yonent bi fatxa Makka ci atu juróom ñetteel ba ca gàddaay ga ci weeru koor la woon ñaar fukki fan ak benn ndax dafa metti woon ba yenent bi ak jullit ñi wax naan maata nasrullah moo wallu yàlla kan yàlla ni leen ala inna nasrullahi qarib soreetul wallu yàlla soreetul wa iza jaa nasrullahi wal ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وبوبا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wàllu yàlla bu ñëwee soreetul waaye bu ñëwee bu nga gis nit ñi nag la nga bëggoon am ñuy tabbi ci diine di dugg sa fan sa fan bu boobaa sàbbaalal sa borom te jéggalul sa xeet wi ndax yenent bi amul bàkkaar lii bàkkaaru yenent bi mooy biñ ko laata yónni mu daan dem naan sama mbokk yi de li nuy jaamu du dara li nuy jaamu fukki kilo la waaye lii du yàlla waaye yàlla téeméeri kilo la